بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom cant goo xam ni dafay kawe lool ba tolloo ak màggaayu sunu boroom ak kawaayam ak sori goo xam ni sunu boroom sori na ko lépp sikk ak i ayib ak i manqué manqué nga xam ne loolu melokaanu mbindeef la ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di taxiyatu ahlil jannati fil janna muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi tàmbali ci nuyoo bi jiital ci ñi nga xam ne ñooy magu dëkk bi tàmbalee ko ci imaamu jàkka ja ak jumaa ji ba yóbbaale képp koo xam ni mag nga di kilifa ci dëkk bi ak sunu kilifa gi nga xam ni moom ñëwit ñëw na fekkee si jotaay bi di ñaan sunu borom yàlla na yàlla woyofal ko yéen bin ko yéen. di nuyu mbokk yi yëpp di am mbégte lool ak kontaan di ko seedaloo sunu borom ci ñëw gi nga xam ni ñëw nañ ko fii xëy na mu nekk ñëw goo xam ni mooy njaal bee nag teg goo xam ni teg nañ ko suñu tànk ci barab bii. rawatina comme ni ko sunu mbokk mi waxee xam naa dana ñoo doon jàngaloo de sunu sëriñ la woon moo ñu rawoon foofu wax dëgg yàlla man bi ma ko fekkee fii damaa tiit sax ndax comme ni mu ko waxee at yu bare bare bare lañ ko jëgi sante jàpp naa ne ñëw gi moom njariñ yi mu am bu moo doon lim yi ci gën a mag dinaa ci boole bii ndax tasaaroo woon nañ tasaaroo goo xam ni moom xaw tuuti kon fàttente nar a dox ci diggante bi kon alhamdulilah jataay bii di jataay la boo xam ni ñi tànn mawdu mii day comme ni ko sëriñ bi waxee sànq jàpp naa ne ñu ñor lañ lay ware ne ñu ñor lañ mooy du caagee ne sax ni dañoo toll fu ñu yëg yàqu jikko ba ak defaru dikkal nu wala bëgg a defaru dikkal nu waaye jigéen da di jumtukaay boo xam ni ba sunu borom sàkkee àddina ba tey jumtukaay la bopp defarukaay la ci ab société waaye yàqukaay la ci société loolu moom jàngkat yépp a ko xam ndax jigéen dafa am ab taxawaay boo xam ni ci buntu defar góor sax mënu ko donte nag am na yu sunu borom jagleel góor wala si jigéen ci buntu yàq fab lam ca man moom genn wàll ga sax góor mën ko jumtukaay bu mel noonu nag yitte ju rëy la ko lislaam jox ba defarut société man caa am yàqut société ñu mën caa bucc moo tax thème bu mel nii wala mawdu bu mel nii day jàpp naa ni bees ko xerawloo déglu ko kenn ku ci nekk bu jógee rek dafay daal di xam warteefam ndax am na yooyu da nga koy joxe nit ki waaye bu dee borom xel la rek moo yeggal boppam nu ànd dimbali ko borom bi subhanahu wa taala ñaan ko mu defal ñu tawfiq boyal sunu làmmoñ leeral sunu dënn ba lii nga xam ni moom la ñuy bëgg leeral mu leer waaye borom bi ubbi sunuy dënn it ba li nga xam ni moom lañ fi déggee ci ay njariñ ñu mën koo jariñoo kon nu ànd xam ni borom bi subhanahu wa taala bi mu nammee sàkk ci kaw suuf ay mbindeef comme ni ñu ko xamee dafa yabal jibril mu ñëw tibbal ko ci suuf ab tib comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee mboolem xeeti suuf yi ànd ca suuf su xonq sa suuf su weex sa suuf yi ban sa suuf yi beej ba ba suñ borom sàkk ca aadam ca nam ko sàkkee xoolal foofu ni borom bi bi mu sàkkee aadam amut leneen lu doy ngir ñu boole koog moom walis jigéen keroog bi suñu borom di wàcce aadama ci kaw suufit boolewu koog doomam boolewu koog rakkam boolewu koog magam waaye jigéen la ko boole laaj bi foofu mooy ba suñu borom sàkkee aadama te sàkkul meneen moroomu góoram teg fa bi mu koy wàcce ci kaw suuf wàccewu ko ak moroomam góoram jàpp naa ni ku di borom xel rek war ngay xam ni kon góor ci jëmmi boppam mënul dund dund gu jàkk lu dul dafa ànd ak jigéen bu nekkee jigéen ju baax nag dund ga gën a jàkk sunu borom teraanga ju rëy la teral jigéen loola bokk na ci li tax ñu tànn mawdoo mel nii muy wàccuwaay bi nga xam ne jigéen am na ko ci lislaam wala nan la lislaam jàngale ci mbirum jigéen sunu borom nag mbokk yi dafa teral jigéen teraanga joo xam ni ma nga tàmbalee te sunu yaay Hawa di soxnas maam Aadama ndax ba sunu borom sàkkee Aadama Aadama wéet lool sunu borom da ko bàyyi ba mu gëmmentu nelaw dikkal ko sunu borom rocc ci faar ak càmmoñam la mu sosee soxna Hawa loolu kon firnde ngoog buy wane ne jigéen ñu ngi ko génnee ci góor kon góor gi ci jëmmi boppam bu demee tey bay jóg di wuti soxna na yëg ni la manqué woon ci moom lay dem pour jëliwaat ko loolaa tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñàkk a takk soxna day bokkut ci saaw doxalin man ndax loola day wane manqué ak doomu aadama su fekkee gàllankoor benn daru ko ci gàllankoor yi tey nit ki jël soxna gis nga nag saa bu ko nit ki jëlee te jaarewu ko ca na ko lislaam bëggee dal ga taxoon góor di aajowoo jigéen doo ko am ndax xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha bi suñu waram di sàkk jigéen dafa am lu manqué ci góor ba tax amuluk dal kon jigéen bu ñu ko andee loola manqué ci góor day dellu si waat mu amuk dal borom bi nag ku teral la mu jigéen teraanga joo xam ne keroog ba mu sàkkee maam Hawa ca la tàmbali te teraanga ji du teggee ku mukk ba sunu borom di tukkal àddina bi am na lool bés suy waxtaanee jaaduwut moos romb ko jàll lu dul dees na ci def ak taxaw seetlu mooy lislaam ci jëmmi boppam am na lu ko fi jiitu ndax doomu aadama yi bi ñu wàccee ci kaw suuf dëgg la borom bi wàcce woon na fi diine ndax aadama alayhi salaam gis ngeen ko bi ñu wàcc ci kaw suuf ci alquran sunu borom da ne ko fa imma yatiyannakum minni hudan ah njub de dana la dikkal ku topp njub li so demee suur toxaamu ni ko fala yadillu wala yashqa doo sànku doo halku waaye ku ñàkk topp nji njibli dund gu karaj ngay am dund gu naqari te àllaaxira yi da ngay xal kon ndeke weneen doxalin weneen yoon beneen gisin bu nit di jéem a jaar wudul wal islam tër na yëg dafay sonal boppam fii ci àddina sànq boppam ci àllaaxira l'islam jooju dem na ba tàmbali di raaf raaf googu moo waral sunu borom di yabal ay yonent nangami téeméer ci ay yonent sunu borom yabal na ko comme ni ko imaam waxee sànq am na yonent yoo xam ni nettali naa la ko am na yoo xam ni nettali ma la ko wa kallama allahu musa taklima yonent yooyu kenn ku si mas a ñëw jubbanti yàqu-yàqu yi nekk ci société bi moo la andi woon borom bi subhanahu wa taala yónni na yonent yi ba yonent yi jeex te yónniwul yonent bu jigéen loolu njàng mu rëy ma nga ca ndax jàpp naa ni du lu ne rek la jigéen mën a def du taxawaay bu ne la jigéen mën a taxawaay waaye nag jàppal ni ñañ doon yónni ay jigéen a leen doon jur ay jigéen a leen doon yar ay jigéen lañ doon denc soxna di ca ami doom kon jigéen am na lu ko suñu borom programme loo xam ni lu rëy la walis ko mu yóotu place boo xam ni borom ba am na ñu ko jagleel boo xoolee lislaam bi mu tàmbalee raaf donte suñu borom mi ngi yabal ay yonent yàqu-yàqu tàmbali naa am ci société yi nga xool jigéen société yi nga xamante ni yàggoon na ana ban gis-gis lan amoon ci jigéen gis nga sunu jigéen yi tey jàpp naa ni bu nu xamoon fi leen lislaam jële ba fi mu leen teg tey amul benn njàngale bu lislaam di indeeti buy diis ci ñoom la ko waral mooy ku xam metti metti fa nga jóge ci ngay xam neex neexi li nga toll am na ci société yi jiitu woon lislaam société boo xam ni moom la ñuy tuddee al yunaani yu muy grec yi ak waa perse te lii may wax historien boo mën a gis moo xam diine la jàng moo xam jàngut diine l'essentiel demande rek te wax lam jàng dana la saxalal lii ma lay bëgg a wax société yooya boo ca delloo ci lu jiitu lislaam ñoom jigéen dañ koo jàppee woon rek ab marchandise boo xam ni dañ koy jaayante di ko jëndante maanaam ni jumtukaay yii mel nga xam ne da nga koy xeemeem jënd ko xeemeemoo ko nga jaay ko keneen ko ko xeemeem mu nekk loo xam ne benn valeur amu ko ñoom seen société yooyu noonu la jàppee woon jigéen bu ko defee lenn luñ naan moo ko moom wala moo koy dogal yooyu sañ-sañ moom xalaatee su ko jàpp naa ne loola lu diisoon la lu metti la woon ci jigéen ñi am na beneen société boo xam ni ñoo gën a def jeexintal ci ñun waa Afrique rawatina fii Sénégal muy français yi société française yi ñoom soo delloo ci seen doxalin bu yàgg balaa lislaam di wasaaro di mel nii jigéen moom bu xësee ni cëpp sëy si ci kër doyadal gin koy njëkk a def mooy way juróom la ñuy njëkk a doyadal dafa am lool yenn masala yoo xam ni léeg-léeg balaa ngay jàng lu ca lislaam wax da ngaa war a xam fu mu bàyyi ko gis nga li waral jigéen du wuyoo santu santu baayam muy wuyoo santu jëkkëram loola du sunuy aada noonu déedéet léeg-léeg nga waxtaan ak nit mu ni sunuy aada la fekk déedéet ñun ñi mujjee ñëw ñoo foog ni sunuy aada la fekk du sunuy aada de société yooyee nga xam ne ñoo nekkoon société français yi bokk na ci seen doxalin mooy salb la la nga xamante ni mooy orm ak baay da ngay rikki wikki sant wa baay amoon di wuyoo sant borom kër nga xam ne mooy lépp te it nag boo xësee say si ñoog grec yi sorente wuñ woon jigéen ji moom amut benn sañ-sañ te lii may wax ku jàng histoire même bu dee bi nga jàng dugg diine sax bu fekkee maanu nga nëbboo rek da nga feeñal lii ma wax ni mooy li am mooy jigéen moom amul woon kàddu gis nga tey ñiy woote di wax jigéen nii nanka tinaay di wax ay wax dama yaakaar dañoo xamul démb wala dañoo fàtte ndax jigéen ci jëmmi boppam ci société yooyu moom amul woon kàddu faf moom daal moo xarum yaram yem ci kër gi dees na ko jox mu lekk bu tilimee ñu sang ko buñ ko soxlaa rey ko am na beneen société boo xam ne mooy société anglophone yi mooy anglais yi ñoom ñoo gënoon a fës ci jigéen bu way juróom faatoo amut doon moom du doon jigéen société société yooye ñoom muy anglophone yi ñi anglais yi ñoom seen société jigéen daawut doon xalaatoo jëkkër ji tey bu yaroon ci alal lu dul jeex bu demee ba faatu dikkal ko sañ naa bind benn wasiya muy testament wane ni kat sama xaj bu góor bii ci kër gi su ma faatoo na doon sama alal ci te jabar jàngi fi loolu moom am na ba tàyyi nga xam ne nit ki moom xajam bi ko doon gardeel buntu këram moom lay bind benn testament wane ni kat sama alal ji nañ ko bàyyee sama xaj bi su ko defee alal jooja kat dañuy dem dugalal ko xaj bi ci compte ba fekk jigéen jàng ci kër gi ça veut dire que kon jigéen ji xaj bi ci kër gi di garder moo ko ëpp valeur beneen société ngi nii mooy romain yi ñoom jigéen ba léegi kadalik sorentewul ak seeni morom xaqu tasarruf moom amu ko maanaam sa borom kër di nangam lañ ngay joxe sa xalaat déedéet yow sa xalaat kenn soxlawu ko mbir am nga ciy participer sa participation kenn soxlawu ko maanaam yow daal loolu wax nga ni waaw suñ ñee baax na nga ni waaw buñ ñee noonu la nga ni waaw yow daal topp ci ginnaaw rek amul amoo kàddu amoo xalaat moo tax yuuxu yi ñuy yuuxu tey di wax ah jigéen lii jigéen naa ñi koy wax ñëpp dañoo fàtte seen histoire ne fii la jigéen tolloon ci seen i société xanaa tey la mbir mi avancé ba nit ñi xam nga nit ñi nag ñenn ñi dañoo gaaw a fàtte ñenn ñi dañoo xamut am na beneen société bu ñuy tuddee société indo yi ñoom ñoom ñoo gënoon a yées ñëpp ndax ànd ak doyade gi ñu doon doyadal jigéen ñi yëpp gis nga bu jëkkër ji njëkkee faatu moom du fi bàyyi jabar ji ñoom ci seen société bu jëkkër ji faatoo dañ koy yóbbu taal ko buñ ko taalee ba noppi jabar ji dañ koy yeew taal ko ca pegg ba lu tax ñu ne ko da nga am gaaf ndax lan moo tax ngay xoole ba sa jëkkër di la njëkk a faatu loolu tegewul ci loxoom kon ñoom société yi nga xam dañuy lakk néew soxna si dañ ko daan yeew xëy na civilisation bi dem ba yooyu commencé xeewaay yii moo amoon dañ koy yeew lakk ko fekk mi ngi dund lu ko waral mooy kenn soxlaatu la da ngaa gaaf ndax da ngaa xoole ba sa jëkkër dee balaf société pharaon yi muy égyptien yeeg ñi nga xamante ni ñoo xamut woon diine ñoom dañ doon wax ni al mar'a baabu shaqawa jigéen daal suñu borom mënoon na ko bañ a sàkk fa sàkk ay góor kese ñu ne lu tax ñu ni ndax jigéen mooy buntu toroxtaange hiya lisaanu seytaan jigéen mooy làmmuñu seytaane jigéen daal seytaane la amul benn njariñ suñu borom mënoon na ko bañ a sàkk sax faf te moo leen jur di leen jural seeni doom ñi nga xam ni ñoo ca tane woon laa wax da ci jamono jooje nga xam ni mooy làbbe yeeg ña doon gëstu diine ñoom dañ doon wax ni al mar'a ruuxun sirriira xalaqaha ilaahu sarri jigéen day ruugu bon la nga ruu moom la dëgg dëgg nit ki ruugi fa wadd nañu ni faatu na ñoom dañ doon wax ni jigéen ruugu bon la ñu séddale àddina bi ut ñaari yàlla ñu ne dafa am yàlla ju yàlla ji nga xam ne mooy sàkk lu baax am yàlla juy sàkk lu bon ñu ne jigéen jë jigéen nag yàlla jay sàkk lu bon moo ko bind moo tax baaxul te ñooñu ñooñu leen xoolee bët diine bu ñu amee masala mu jaaxle ci ñoom la ñuy dem waaw léegi su fekkee société yii bi ixtisaarin shadid boo wooyee addina bi daanaka ñooy yi ci gënu na am puissance doole nii lañ gisee woon jigéen am na benn bindkat bu mag bu ñuy wax Herbert Sibers ci atum 1800 cinq dafa bind benn lettre ci seen kàngam yi la woon dafa bindoon benn lettre lettre bi mooy jàngat naa jigéen xool ay mbiram ba gis ni jigéen daal amut njariñi àddina amut njariñi àllaaxira comme nag jigéen daf nuy lakkal di nu sonal su fekkee yow da nga am jabar bu neexee àndal ak moom waaye soo ko meree comme yàlla lu bon moo ko sàkk su boobaa sañ nga ko taxañ yóbbu ca marché ba jaay geneen góor góor goo ko xool ndax mën naa dund ak moomam déet te ba mu ko waxee kat bind ko ci livre wasaare ko ci àddina bi ñu bari dañ ko caa fekk si di wote lu mel noonu jàpp naa ni lii nag ki ko dégg te xam ni mboolem société yi fi amoon jiitu lislaam nii di fës nii lañ jàppee woon jigéen gëm naa ni bépp jigéen ju ko dégg dana am lu ko mitti lool ndax bu ñuy wër ku ko doya dal ñii ñoom dañ cee raw faf am na société boo xam ne ci ñoom la lislaam wàcc muy société ceddo gi nga xam ne ci ñoom la yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom moom kéemtaani suñu borom la woon ci bañ jigéen ci bañ jigéen boo musaana toog ca daanam place wala ca penc ba ñu fekk fa ñu ne sa soxna mucc na am na doom li ngay njëkk a laaj mooy ndax góor la wala jigéen góor la nga tëb a ka dal waaye bu ñëwee jigéen la rek nga seen waa ji karam gi ñagas ak a fasu wa ida bushira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim kun ci wax ni sa soxna mucc na doom ju jigéen la am rek nga gis kanam gi commencé ñëkk ak a ñuul yatawaara min al qawmi min suui ma bushira bi xoolal lu bon li ma yàlla wërsëgal loolu lan doon wax de yatawaara min al qawmi min suui ma bushira bi xoolal lu bon li ma sun borom jox ayumsiku ala hun xanaa gàcce gi dama koy denc rek kenn du yëg ni am naa doom ju jigéen am yadu suhu fi turaab wala damay dem rek ginnaaw néeg ba rek gas ko fa suul suñu borom ne ala saa ma yaxkumuun yaay bon yaa bon loo def ñooñu ñoo nekkoon ceddo gi jiitu woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ka ca mucc moom nga xam ni bëggul doom bu doomam juddoo da koy wàqi suul loolu tax nga gis wa ida al mawudatu suilat bi ayi dambin qutilat suñu borom ni ki amoon doom bu jigéen mu wàqi suul alaxira moom fu mu mën a jaar ak ku mu mën a àndal dinañ ni ko rattee laaj ko lan mooy ndeyu nga jëm kii di ko gas di suul loola nag moo jur sànne jur du dem ca géej ga loo mën a def rek benn bi la bokk na ca doyadal gi société boobu doon def jigéen gis nga nit daana doon jabari baayam société yooya nit mën ngaa dund ak sa baay ba sa baay faatu nga doon jabaram maanaam nit ki mën naa ñëw aaw baayam a ko jur mu dem takk ñaareelu baayam moom defe naa ñu jàng histoire xam nañ koo xam ni xëy na ma teewlu tur yi fii ma toog yonent bi dafa joxe woon saxaaba yi ndigal dem leen ngeen rey ko ñu ne lu xew mu daa takk ñaareelu baayam loolu du problème amul problème sa jabari baay nga takk ko loolu dara ci woon ci ñoom loolu ak doyadal du ko paase ndax kooku sa yaay la bokk na ci doyadal gañ doon def jigéen mooy jigéen boo ko masaana mere pour xorñoñal ko muy naqaral ko doo ko fase déedéet da nga koy bàyyi ci kër gi doo ko jox mu lekk doo ko jox mu naan ah doo ko jox ay doo ko xoramal maanaam da nga koy yeew te doo ko yeewee moom la ñuy tuddee al muallaqa moom la suñu borom tere na fa tadaruha kal muallaqa bu leen ko bàyyi rek mel ni leget gun weer fële rek luñ amagul aajo loolu lislaam da koy tere ñoom noonu lañ doon def parce que jigéen ji fee fase woo ko sañ te dem bu ko defee mu toog ci kër gi di souffrir di dund ay mettit lépp ngir naqaral ko miraas moom jigéen benn tey la tàmbalee am góor ñaar waaye loolu daa amul woon faf jigéen daawut doom déedéet alal ji lu mu bari bari bari lu jigéen ji ñàkk ñàkk lu mu souffrir souffrir daawut doom sëy nag moom nan ko doon defee moom daanaka waxal ba sa xol sedd rek nga bàyyi ndax loo wax noonu la wala lu ko gën a bon am na ci daanañ jékki-jékki ba mu yàgg nga gis góor gu am soxna moom mu gis góor gu am forme gu gu gu gu gu alde comme ni nga koy waxee góor gu gu gu gu jàmbaare njool ca kaw nangam am yaram mel nii mel na le nga ne man kat damaa bëgg am doom ju mel ni góor gii di dem nga jël sa soxna dem ci waa ji ni ko abal naa la sama soxna ay fan su ko defee moom pour mu sëy ak moom ngir doom bu ca juddoo mel ni góor googu nga seen muy dem loolu amoon na jigéen daanañ ko tëj ci néeg boole ko fukki góor ni ku nekk na sëy ak moom bu ñu sëyee benn façon bi bu doom juddoo ndaw si moom mooy ñëw xool ku ko neex ci góor ñi rek mu ne yaa jur doom ji wa illaa ñu ñëw xool doom ji kan la gën a nuróol ci góor ñoom ñu ne ko yaay baayam wala nga ñëw ci nit ni ko jox ma sa rak ma jox la sama rak jox ma sa mag ma jox la sama mag jox ma sa lii ma jox la sa mu nekk weccante mu ngi mel nga yor ñaari portable rek am ma jox la bii nga wecc ma bi ci des ku nekk dem sa yoon façon yoo xam ni boo ko doon lim sa xol dafay jeex ci xeeti doyadal goo xam dañ ko doon doyadal jigéen jigéen bu musaan a gis baax moom sa jëkkër pare na ci yow bu musaan a gis règle bu doon benn lal ngeen doon tëdd sa jëkkër day wàcc lal bi ndaa lim doon naa ne njaq li ci néeg bi doo ci naanati yow da ngay wut sa poti bopp du ngeen bokkati bool bu ngeen di lekk ba sañ koo toog du fa toog ndax da ngaa salte yow mi gis règle bu ko defee da ngay bàyyi ba sa règle set ma doo ko àndaat ak yow loolu moo amoon ci seen société yow takkum soxna nag tey la am lislaam naan ñaar ñett ñeent tey bi ñu demee ba toll ci ñu naan góor bu mu paase benn dañoo fàtte ne bu njëkk mbir mi daa amul organisation maanaam bu njëkkoon góor gi mën naa yor lu ma téeméeri jabar yorin woo xamante ni nag moom ku ma neex ci moom laay aye ku ma neexul du ma dem ci moom nu la ko ne kenn du la contrôler xam ngeen ni benn waay ñëw na ci yonent bi sallam yonent bi ni ko ñaata soxna nga yore mu ni ko man kay li ma yore sax daa ëpp ñeent yonent bi ni ko faseel ñëpp ba mu des ñeent kon loola lu doon am la ci cedd ko tey lan toll ci ñuy jigéen ñi di kaas eddaw bu sa jëkkër faatoo arbaata asurin wa asharan 4 mois 10 jours dafa yàgg bu njëkkoon edda gi li gën a gàtt un an la jigéen di toog eddawu l'islam moo ko wàññi ba mu yegg si foofu yii ma tudd nag ci ay xeeti tënk bi ixtisaarin shadid aydan yii tooñ yépp mbokk yi bi lislaam yegsee daf koo teggi yépp nag la teggi bi mu ko teggee da ko jox lu ñu tuddee xurriya muy liberté waaye liberté gi ko lislaam jox nag mooy liberté gu tolloog na ko borom jaam ñi bëggee muy sunu borom nit ñi jàppeewuñ ko woon nit lislaam jox ko cërëb nit la waaye mu jox ko valeur ba ñu xam ni kat jigéen lislaam jox na ko valeur bokk na ca la koy suuxat sunu borom di wax ni wa annahu xalaqa zawjayni dakara wal unsa société bi li koy doxal ñaar lañ muy góor ak jigéen te sunu borom moo leen boole sàkk ñoom ñaar kon ñoo bokk yam fa moom kooku benn ci liy wane teggi tuub tooñ yaago yaa ayuha nnaas sunu boromu ni éeyéen nit ñi inna xalaqnaakum min dakarin wa untha sunu boromu ni nun nu leen sàkk ci góor ak ci jigéen kon càkkteef gi góor kese defu ko jigéen kese defu ko waaye ñoo ko bokk yaa ayuha nnaas éeyéen nit ñi ittaqu rabbakum ragal leen seen boroom alladi mi nga xam ni xalaqakum min nafsin waxida moo leen bind ci benn bakkan wa xalaqa minha zawjaha mu bindal bakkan ba muy aadama soxnaam di xawaa wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa li soqeekoo ci ñoom yépp di góor ki jigéen ci góor ak jigéen la bàyyi ko suñu borom ni gis nga góor bu jaamoo suñu borom moog jigéen jaamu suñu borom dajeeg yàlla ñoo bokk yam ku nekk tiyaaba dong la la yàllay fay amul farfarloo ko suñu borom di def inna almuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat walqonitina walqonitat ila axiri al ayat jullit ñu góor ñi jullit ñu jigéen ñi ñu gëm yàlla ñu góor ñi ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi ñu dogg ñu góor ñi ñu dogg ñu jigéen ñi woorkat yu góor yi woorkat yu jigéen ñi sarxekat yu góor yi sarxekat yu jigéen ñi dama ni suñu borom mu ni yéen ñépp ku ci góorgóorlu suñu borom mu ni waajal naa la fay gu rëy a rëy gu dul fa suñu borom kon góor mën na faa bañ a ëppale jigéen su fekkee jigéen farlu na suñu borom mu ni man amila saalihan ku góorgóorlu ba jëf fii ci àddina jëf yu baax min dakarin moo xam góor la aw unsa wala jigéen fii ci àddina moom fa la nuxiyannahu xayaatan tayiba dinaa def ba suñu borom nee na dinaa def ba ak dundam nekk dund gu jag gu neex waaye wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluun lu gën a rafet li nga doon def laa lay fay kooku góor ak jigéen la ko suñu borom boole kon mi ngi bëgg a dàq léegi doyadal gi ñu ko doon doyadal ak gannaawal gi ñu koy gannaawal l'islam yemul ci loolu waaye doon jigéen ci jëmmi boppam te boobu dama ko tëb léegi dama ko fàtte mooy bu njëkkoon nit ki bu nekkee magam wala rakkam wala mbokkam bu soxnaam faatoo amul ngay ñëw naan soxna si bëgg nga maag bëgg naa laag dama laa bëgg a takk déedéet morso bu xonk ngay ñëw rek sànni ko ci kaw bopp bi rek mooy wane takk naa la neex na la naqar ne la samay nekku ci dama la takk. suñu borom yaa yow alladina amanu laa tarisu nisaa kurhan karhan bu leen doon jigéen ci force déedéet jigéen ji dafa am suwaa dafa am bëgg-bëgg nan ko bàyyi mu tànn ba bëgg moo tax l'islam yi tere góor gi di forcer doomam ci maye ko na ko bàyyi mu tànn ak suwaam parce que am na ci sañ-sañ islam fekk jigéen buñ daan séddale miraas moom daawut am moom moom da daawut bokkut sax faf l'islam ni bu ñu séddee nañu jox ñaar góor jigéen ñu jox ko benn jàpp naa ni kon bu nu demee tey ba ay nit di taxaw di woote woo woote ak liberté wane ni góor ñaar jigéen benn atte bu jeng la xam nga la Omar ibn al-Khattab doon wax naan gis nga l'islam ji lee mu tàmbalee yàqu ñu ni ko lu tax mu ni gis nga ku xamoon caay-caay ga nam mel nga ñëw dugg ci l'islam da ngay fonk l'islam gi ndax xam safaan ba waaye gis nga ku judd rek xam l'islam gi safaan ba xamoo ko da ngay foyee da nga koy miin ba mu ëpp mu ne bu nit ñi commencé juddu xamuñu caay-caay ga lu fa newoon dañuy fooyee lislaam ci waaye jigéen bu xamoon ni amut woon ki ko jox benn jàpp na ni kooku moo ko yërëm te it mbokk yi fanduru ila xikmati lbaari subhaana séddale gi da ngeen defe ne suñu borom dafa jékki-jékki noonu rek tànn góor ñaar jigéen benn noonu déedéet waaw léegi góor mi nga xam ni daa war a am soxna wala ay soxna war a am doom wala ay doom bu bàyyam dee dund mu war koo yore su magam dee dund mu war koo yore fitna bu amee moom la ñuy yaakaar alalam mu fas yéenee ko bokk ki bokkam ku jaaxle ci problème mu jafe-jafe bala ngay seeti jigéen sa xel ci góor lay njëkk a dem jigéen moom dañ koy fekk ci kër gi takk ko fas yéene koo yor lekkam ak naanam ak koddaayam waa mbokk yi ku amum xel ndax ñaar ñii buñ leen dee sédd xel nanguwut ñu jox kee ñaar jox kii benn moom bennam bi dañ leen ko fasal ci sa lafal seen si yóbbu ndax kala yóbbu moo la war a jox a nga añ reer ndékki boo feebaree mu faj la waaw jigéen moom kon bennam bi lu mu koy doyee xanaa fajee soxlaam yi sew sewaan kooku yey na moom benn moo tax amul benn njàngale bu lislaam di def lu dul boo toogee nga nafaraat rek da ngay xam ni huwa alxaqi xakimul xabir suñu boroom ku ku ku xereñ la amut lenn lu muy def loo xam ne ak juwat loo da cay am moo tax benn waay boo xam ni saay-saay la ŋàññi lislaam ko tax a jóg mu naan lislaam daal dëgg-dëgg daa man di wax di weddi boppam rek ah loxo bu fekkee da ngaa sàcc ah la nga sàcc nga xam ne matut dara ñu ne nañ dagg loxo bi ah te bu fekkente ni nit ki dañ koy jox diye dañoo dagg loxoom ah di ko fay diye nga xam ni mooy ndàmpaayu loxo bi ñu dagg ñu seet ay millions di ko ko jox pourquoi loolu benn borom xam-xam bu moom ma man la muy def tontu ko mu ni ko gis nga loxo bi izzul amanati aglaha fa arxasaha zullul amanati fandur xikmatal baari loxo yi biñ nekkee ñaar buñ dee joxe di ñu joxe ay millions te kii bu sàccee téeméer rek ñu ne nangam ay téeméer rek ñu ne ko daggal loxo bi lu tax loolu tolloowuñu mu ne loxo bi dafa ñàkkal boppam fayda bay sàcc yëfi jàmbur ñu ñàkkal ko fayda ni ko tipp dagg loxo bi daa ñongeeloon am fulla ba tooñut ñu ñëw fekk ko dagg ko ñu ni ko sa sa téye gi nga téye sa loxo moo tax lu valeur lan lay fay mu ni ñongeeg loxo moo tax ñu valeurel ko bañ koy fay doya dalal loxo di sàcc moo tax mu ni fandur xikmatal baari suñu borom lépp lu mu def rek lu xereñ a tax mu def ko jigéen l'islam daal di koy sédd ab cër li dakari mislu xadd al unsayayn jigéen dana am genn wàllu cër bi góor di am góor mooy am ñaar bu njëkkoon da ngay téye jigéen ci kër gi doo ko wàcc te di ko doyadal l'islam mu ñëw mu ni déedéet wa aachiruhunna bil maaruf soxna soon da nga koy mën a yor yor bu baax mënoo ko fa in karihtumuhunna te xoolal sharia sunu borom alquran waxin wu xóot lay waxee waxin woo xam ni maanaam da nga da nga ciy yëg ni kii ci boppam moo mën a moom addina bi wa ashiruhunna bil maaruf téyel sa jabar ji téye bu baax soo demee ba mënoo koo téye waxut waxut wàcc ko de waxut wàcc ko de dañ gis nga waxut wàcc ko de fa in karihtumuhunna gis nga boo bañee sa jabar ji ba léegi mi ngi lay xemem loo pour nga téye ko parce que jigéen sëy fii sëyaat fële sëyaat fële du mu ne fa in karihtumuhunna gis nga boo fi bañee sa jabar ji ba sa xel mi nan naa ko wàcceg naa ko sànni mu ni fa asa an takrahu shay'an amaana yaa ngi koy bañ de fekk sa yiwu àddina ci soxna si la fa yàlla def allahu akbar loolaa waral bu jigéen ji buñ ko wàccee ñu ni jigéen ji na eddewoo ci biir këram laa tuxrijuhunna min buyutihinna lu tax ndaxam jigéen bu fayee takk ay bagaasam dem këram ñibbi bis bu fay li jotee mooy gën a diis gën a jafe di takkaati bagage ak jëmu ji dellu si ndax kersa ak jom ak yëpp day taxaw waaye ndaw si bu nekkee ci kër gi dafi eddaw ah ngoon jot mu solu romb la wa illa xale yi jot a jur ndaw si génn ci ngoon gi rek xale yi turbile ci kër gi ka jooy ak nag nga xam ne kii bu fi génnee yëf yi mën naa am lu mu yàq de wa illa ci diggante bi borom xel mu ñor ñëw wax ca maanaam defaru biir néeg moo gën a yomb defarum pénc ma moo tax l'islam mu ni bu leen leen génn bàyyi leen leen ci biir kër yi loolu lépp valeur boobu jigéen islam moo ko koy jox amul woon can bu njëkk jox ma sa rak ma déedéet amul loolu de sunu borom mu ni déedéet wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla jigéen du marchandise mu ñuy wecce weccex ndiku soo bëggee takk da ngay joxe li ñuy tuddee can aatu nisaa saduqaatihinna nihla nekkul marchandise bu ñuy weccantee ka foyante déedéet boo ko bëggee doo ko labatee ca mbedd ma da ngay dem ba ca këri ay way juram nga wutee ji ko fa tey da ngay joxe li ñuy tuddee can amul woon lim góor mën naa takk nangami jabar ay téeméer sunu borom mu ni fankixu ma taaba lakum min annisa masna wa sulaasa wa ruba takk leen leen soob ci jigéen ñi ñaar wala ñett wala ñeent soo mënul nga yam ci benn gis nga jigéen bu foogee ni l'islam jàpp gi mu jàpp ni nañu jël ñaar ñett ñeent loolu ak doya dal benn dama koy xoolal fii ma la wax ni falal l'islam jële ba pare ñaareel bi mooy su fekkee da ngaa jàpp ni yow wujje ci boppam lu lu diis la lu baaxut la waaw bu fekkee yow wala sa way juru góor sa way juru góor bu fekkee ñaareelu baayam moo ko juróon su ñaareel amul woon ndax sa baay dina judd yow yow su fekkente ni sa ñaareelu baay wala sa ñetteelu baay moo la jur ndax bu loolu amul woon yow di nga ñëw ci àddina yow sa rakk bu jigéen bi nga bokkal ndey ak baay mu toog amut borom kër sëyiwut ndax rek bee xat ak mu am keneen ku mu nekkal ñaar yooyu bu la ci gënal jigéen ji mu ne ci kër sëy amut doom ñu wàcc ko ndax loola ak ñu téye ko di ko teral ndax loolu dogal suñu borom la moo xam ne tax mu def ko te loolaay la baax ndax lu mu def loolu lu baax nga wuti keneen andi dolli ak nga wàcc ko mu def bu gën ila axiri yooyu ay xikam la yoo xam ne boo ci xool rek xam ne lislaam lu mu jàngale rek te it nag sax bi ci gën a kéemaane mooy gis nga góor bu ko manee physiquement lii laaj leen ko ñi nga xam ne dañuy jàng ilmu nafs xam ni ni sunu borom mooñee doomu aadama gis nga ba sunu borom wàññi bu ne benn lay tàmbalee ba mu des bu sunu borom ndax dafa tëb rek ni ñaar ñett ñeent gis nga physiquement la wax ci sa koor sa yaara yaramu bopp góor benn soxna ci boppam baaxul sax ci wér gi yaramam loolu boo laajee ñi nga xam ne seen xam-xam gëstu na ci màcc na ci wàllu googu ci nga xam ne borom bi lépp lu mu santaane rek am na lu ne ca gannaawam alimahu man alima wa jahilahu man jahila ka xam moom xam na ko réere réere na borom bi subhanahu wa taala fekk jigéen doon téen ji at mu ne nañ ko wàññi def ko ñeenti weer ak fukki fan tey diis diis yu bari amul ci teen ji ay tàllal sa tànk yi fii muurool lu ñuul da ngay fuddanu tegal paaka ci pegg bi bul bul bam bul génn dem fi yooyu yëpp ay diis diis la yoo xam ni islam yoonalu ko wàññil say takkaay wàññil say taar wàññil say dem ak dikk toogal benn place góorgóorlu ci jaamu yàlla di xalaat sa borom kër bi nga doon nekkal tam dee dee balas yaa cay topp yooye rek la waaye diis diis yiñ ci teg yëpp ay mbiri aada rek la waaye du islam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci siiraam bu Aysa mosaana gis baax léeg-léeg dañuy bokk lekk bu Aysa jëlee ndawal mu sex mu ne ko yàbbil nga jox ma wala boog daggal jox ma ngir bëgg a wane ni jigéen taqut lu tax ñu koy daw fekk daa gis baax yii yépp mbokk yi boo léegi yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour firndeel jëfi sunu borom jot ak waxam ji mu ni man aala jaariyatayni xatta tabluga jaa yowma alqiyamati ana wa huwa kahatayn wa damma asaabiahu sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla may ci doom yu jigéen yi ñaar beneen riwaaya mu ni nga yar leen yowma alqiyam boo dikkee moom maag yow nii la ñuy def allahu akbar ca ajal loolu loolu waxuñ ko ci góor de mu ni man ibtuliya min hadihi albanati bi cheyin fa axsana ilayhinna kunna lahu sitran min annaar ku yàlla nattu ci doom yu jigéen yi kon ndeke doom yu jigéen am nattu la tamit nag loolu moom ku njabooti jigéen xam na ko ku ci yàlla nattoo nga muñ nattu ba yar leen ci lislaam rafetal yar ga ñoom sax dañuy nekk kiiraay guy tax mën ngaa bañ a tàbbi sawara loola ci jigéen lañ ko waxoon ko ci góor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj ga mu defoon muy aj gu mujj ga tey mooy aj gu njëkk ga comme niñ ko xamee bokk na ci discours ba la ci gën a siiw mooy istawsu bin nisaai xayra góor ñi ñu ne naam muy rafetal leen jëme ci jigéen ñi jigéen ñi ñooy seeni nawle ñoo leen di toggal ñoo leen di fóotal ñoo leen di jural ñoo leen di ëmbal seeni doom yonent yàlla mu ne maa akramakunna illa karim foo fekk góor guy teral jigéen rek góor gu tedd la waaye foo fekk góor guy toroxal jigéen góor gu torox la xëy na benn bis rek sallallahu alayhi wa sallam yéeg ci kaw minbar bi daal ni jigéen ñi def nañ délégation démb ñëw ci man nee nañ ma am na góor ñoo xam ne dañuy metti talaka xor ñoñjal seen soxna ci seen biiri néeg nanu yëg ni loolu ñuy def neexul yàlla neexul yonent bi te it neexuma daal di mer wàcc dem gis nga bam ko defee góor ñi commencé nag di wàññi seen loxo ndax bëgguñoon yonent bi mer jigéen ñi commencé am jàmm ah xam nga jigéen tamit nag boo ko mayee tuuti mu xaw a ëpp rek moom it day daal di bajantu jigéen ñi ñoom it commencé kenn ku ci nekk ah ñaw ku gis ñaw ba nga laala ma rek ba yonent bi ñëwaat fii moo tax Amar dellu siwaat ni ko ah yonent bi fi ne jigéen ñaa ngi bajantu ndax sa discours keroog baa tax ba léegi fi ne koo jub rek mu ne ah ñaw ba nga laal ma xam nga tamit dëgg la yonent bi aidé na leen dimbali na leen waaye tamit ñoom it daanaka léeg-léeg dañ ci yokk yu ci bokkul kon yu mel noonu yàgg naa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di défendre ña nga xamante ni ñooy jigéen ñi rafetal jëme ci jigéen moom jàpp naa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu nekkee xudwa ci lépp ne la ci nekkaatee xudwa bal sax nag dafay tagg jigéen ji gën a góor gi gën a baax ci waa këram xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli góor gi gën ci yéen mooy gër góor gi gën a baax ci njabootam koo xam ni boo duggee sa kër da ngay mel ni gaynde di fuñu fuñuxi ah te boo génnee sa way nekk sàmba àllaar ci mbedd mi nga xam ni liyaas yi ñuy maye yaa koy maye ah waxtaan wu neex wi yow la te boo dikkee sa kër sa sa sa lenn ni mbaax sa waa kër mënuñu koo xam loolu góor gu doyat rek moo koy def lii lépp ngir teral jigéen ak ormal kon mbokk yi jàpp naa ni ci jóge ci société yu njëkk ya nan jàppee woon jigéen ku ko déglu te teewlu ko di nga xam ne amul benn société nag ndax puissance yi amoon doole nga xam ne ñoo nekkoon repères yi ñoom laa ñoom laa taan tudd leen amul benn société nag ñi ko tane woon ci société yi xam nga ni moo nekkoon ñi doon askanoo diine te ñoom ñoo doon wax ni jigéen ruugu bon la yàlla yàllay lu bon moo ko sàkk kon kooku xanaa ci gën ñu gën a yées la bokk kon amul benn société alal itlaq boo xam ne ormaloon na jigéen avant l'islam loolu moom nga noppalu ca keneen ku la manti woo ci lenn bul gëm loolu ndax ab société musul ormal jigéen déedéet l'islam bi mu yegsee kon génn jigéen ca yooya yii nga xam ne mooy xeeti cër ak ak aku bokk islam wane ko te jigéen ji di ko xorñoñal ci kër gi ah yoroo ko dundaloo ko ba pare nanguwoo koo fase islam mu ni déedéet loolu bu njëkkoon la de léegi ama tudde am na bunt bu ñuy tuddee ci wàllu fiq al xulxu xulxu mooy waa ji dem na ba jabar ji mënatul a nekk ak moom moo xam raison ya muy joxe ne nekk nag yu yàlla gërëma ko yonenteem mu ñaan ko baat mu bañ te mi ngi am yëg ni mi ngi souffrir ci sëy bi islam utal na ko buntab summeeku loolu la suñu paa yi naan summeeku mooy xulxu xool xool solution yi la islam di wutal xool mooy lan mooy ba nga may takk nangami junni nga ma joxoon nga jël ko def ko ci enveloppe ni ko nangami junni yaa ngoo gis nga bu nee la may naa la baatat bu la ko may lépp l'islam moom sëy ba tas na gis nga de loolu mooy xool summeeku benn waay ñëw na ni yéen sa man de maay soxna Saabit ibn Qays ibn Shammaam dëgg dëgg ku gëm yàllaa ngoo ku ragal yàllaa ngoo sikkuma ko ci diine sikkuma ko ci jikko waaye nag am na lu ma yëg lu tax mënatumaa nekk ak moom yonent bi ne ah mu ne waaw waaw mu ne alu ci pexe mu ne ko sëy bi laa bëgg mu tas mu ne ko may na la baat mu ne déedéet mu ne ko mbaalam la joxoon can mën nga koo delloo mu ne ko waaw mu ne ko lumu mu ne ko tool bi ci ginnaaw de ab tool la ma joxoon mu ne ko ana tool mu ne ko mi ngi nii mën naa koo delloo mu ne ko delloo ko ko sëy bi tas na kon tey bu jigéen ji tollee ci situation yu mel noonu bu jege borom xam-xam wax ko la muy dund mën na koo leeralal nañuy def ba xullu am kon solution googu islam di ko wutal ku jigéen ki moo tax ñi nga xam ne ñooy yuuxu yëpp ah jigéen ji dafa war a am liberté dafa war a nangam dañ koy lii dañ koy lële bu ko kenn def lii l'islam lii l'islam la dana gën a rëy la dëgg la waa l'islam nag am nañ ci wàllu gu rëy ndax jàpp naa ni yii borom xel moo ko nit li mu déglu ko te xam ne lii lu wér la du ay lépp dana xam ne ndekete ñii di wax nii samay noonu nañ fan ma jëmee ah musiba rekk fa nekk borom bi subhanahu wa taala nag ci yooyu nga xam ni mooy xeeti metti mettee ki xat-xat ak i xañ-xañ mu jële ca jigéen jàpp naa ni nag wax dëgg yàlla c'est normal nag mu organiser ko aw dundin woo xam ni ca la mucc di nekk kon balaa nga naan l'islam moo digal jigéen ci muur moo ko digal mu toog ci këram moo ko digal gis nga boo leeralee lii ba noppi jàpp na ni jigéen joo wax la ko l'islam sant bu dee ku gore la dana ko jéem ndax fan la jëlee métti na lool daf laa fekk ca sën ba nga taq tilim kenn nangu laa for mu for la indi jàpp na ni fu mu la toogloo même bu dee basang bul ni ana fa bi déedéet ki la fekk ci sën ba nga tilim mu for la indi la ñëpp bàyyi la fa mu sang la ba nga set jàpp naa ni bu dee gore nga bu la toogalee ci basang toogal foofu bul xool fa tey ba li ñu dal nag mooy ba nu sangoo jóge ci sën ba ba yegg si ci kër gi ba nu toogalee ca basang ba bañ ximali ko nag xam ni fi ne commencé nañoo bokk ci nit ñi ñu ngay xool fa tey góor ña loolu moo ñu indil problème yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa soññe ci soññeb l'islam bi mooy fatt bunt yi nga xam ne yépp mën nañ faa jaar pour foye jigéen ba ci njëkk ba borom bi mooñee àddina dafa wàcce ku ñuy tuddee góor muy jëkkër wàcce ku ñuy tuddee jigéen muy jabar ñoom ñaar dañoo war a tabax lu ñuy tuddee société bu fi góor nekkee moom kese société bu du baax bu fi jigéen ji nekkee moom kese société bu du baax kenn ku ci nekk dafa am foo manee te ka ko xam mooy ki xam mooy ala yaalamu man xalaqa wa huwa latif alxabir ki gën a xam mooy ki bind mooy sunu borom sunu borom jël góor bind ko melokaanu góor jël jigéen bind ko melokaanu jigéen góor ay poojam ay përëgam ah ay tëstanam benn bu ci nekk gis ngeen na mel bokkut ak jigéen suñu borom saxal ko sikkim sikkim rafetul ci jigéen suñu borom saxal koy mustaas mustaas rafetul ci jigéen suñu borom xuural ab baatam jigéen baat bu xuur baaxul ci moom yooyu yëpp suñu borom defal ko góor muy alaamatu rujula kon mooy wane ne yow kat wuteeg sonn ak dépendre ak defar kër geeg di ko sàkket ak uti lu ñu lekk ak mbaa nga miire kër geeg yooyu nga xam ne mooy xeeti doole ba ko suñu borom di sàkk pour yow yaa taxoon moo tax mu melal la ni nga mel moo tax bépp jigéen bu góor bu am melokaan ci melokaani jigéen ñi rek soof suñu borom jël jigéen saxalu ko sikkim saxalu ko mustaas nooyal aw yaramam nooyal ay loxoom nooyal baatam melokaan yi nga xam ne dafa xaw a jigéene ah moo tax gis nga jigéen ju dëgër bopp ak jigéen ju amu fit saa boo ko takkee rek boo amul saa nga yàqule gis nga dëgër bopp jigéen góor jigut jigéen ci jigéen la gën a bon fit moom baaxul ci jigéen moom li may wax ni borom bi subhanahu wa taala bi mu sàkkee rab yi bu jëloon xel jox ko ñoom nag ak fas jàpp naa ne doo xew la mukk sa xel di xalaat di jël nag mbaa nga bëgg a takk ko sa di takk nag kon yooyu suñu borom defin wi mu ko def jigéen mel ni mel xelam gàtt par rapport ak bu góor nag laay wax ay weenam sëgg diine manqué ndax li fekk ci góor ci julli yu bari jigéen day gis baax di am doom ila axiri di am ngant du mën a julli yàlla subhanahu wa taala sunu borom nga xam ni ñun ñëpp moo ñu bokk moom saa boo jàddee njàngale bi yëgal ni sa njàngale borom nga jàdd sunu borom ni wa qarna fii buyutikunna jigéen moom sunu borom lam gërëm ca moom mooy mu sax ci biir këram gis nga ba ji góor daan génn di lijjanti jeeka liggéey jigéen daan toog ci kër gi ci la yëf yi meloon ni mu mel ah waaw laajal sunu papa yi ak sunu maam yi nga xam ni borom soixante et quelques yi jëm kaw laaj leen ba nga xamante ni jigéen ci kër gi la daan toog bu génnee mooy daa yàq laax bi wala fonde bi def ko ci leget gi yóbbul mag ña ca tool ya dellu si waat wala mu dem marché ndugg gi dellu si waat amul kenn fu muy dem lu dul yar njaboot gi keroog la sëyam gënoon a baax keroog la gën a am ngërëmal jëkkëram keroog xaw ma di àllaaxira waaye fii ci àddina moom jur na lu tekki moom moo tax saa bu ñu ko jàddee rek bu ko defee lan daaw lan gërëmul daal di commencé ñëw sunu borom subhanahu wa taala ci làmmañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni même jigéen dem jàkka ji dafa jullee sax jullee ci biir këram moo gënal sunu borom gis nga dugg ba ci biir néeg ba nga jullee fa moo gënal sunu borom nga lal fa sa jaara ci ëtt bi nga jullee fa lépp rek ngir bëgg jigéen gën a làqu léegi nag gars yi bu ñu jijee dañ waaw islam dafa tëj jigéen ah du du génn du façon nin la koy waxee andaysaan moo tax gis nga ñàkk xam ñàkk xam baaxul façon bi ñu koy waxee ton la boo xam da ngay daal di commencé mere l'islam jàpp ne dafa tëj jigéen daf moo ne l'islam tëjul jigéen ba léegi de wax xar na fi buy tukkal taxul ni mooy jigéen bu mu génn ah kay dina génn waaye ful laa koy tax a génn fayda mu delluwaat ci biir këram l'islam dafa tere jigéen liggéey dëgg la bañ a liggéey mu ngi waaye islam terewu ko parce que dafa am islam terewul dafa organisé loolu nit ñi fàtte maanaam islam du ay tere la bari la waaye organisation la bari la dafa organisé wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ji sax bu naree génn dem jàkka ja yow borom këram bu ko tere waaye nag na yëg ni moom jigéen ji jullee biir këram moo gënal suñu borom mu dem jàkk gis nga bu ñu sàppe woon di julli yonent mu ni sàppe ba gën a sori góor ñi moo gënal suñu borom ci jigéen ñi te moo ne bu dee góor la bi gën a avancé ca kanam moo gënal yàlla lépp rek ngir bëgg jigéen ji di gën a isolé wu yonent bi boo demee ca Madina te jàkkaam ja xool na benn buntu ba mu yàgg mu ne cay buntu buñ ko bàyyi woon ak jigéen ñi mu tudd baabul nisa jigéen ñi di fa jaare lépp rek ngir bëgg société jigéen ñi ak góor ji bu dul jëkkër ak jabar ñu ndax jaxasoo ba mu tàmbalee am rek ci la musiba yi tàmbalee am l'islam day tere jigéen mu parfum wu génn xoolal de da ngay see islam day tere jigéen parfum wu xam nga ci la wax loolu wax dëgg yàlla da ngay may islam terewul parfum wu de déedéet islam dani bépp jigéen bu laal gët mbaa cuuraay mbaa parfum mu génn ay góor yu dul jëkkëram di ko xeeñtu na yëg ni jigéeni njaalokat la waaw ma ni tey boo fekkoon kenn ci koñ bi rek nga tuumaan ko ne da doon njaalo yaakaar naa tey dëkk bi tas de bu dee gor la te moo ne ma ngay génn di parfum yu dem te kooku la yonent salaam wax mooy njaalokat bi kon l'islam terewut dafa organisé waxu la bul parfum wu déedéet dañu gët gu neex googu nga xam day attiré góor ci jigéen sa biir kër sa kanam jëkkër rek kon su boobaa jigéen ji mu yëg ni l'islam may na ko waaye dafa am fu mu ko ko mayee abi Hurayra nee na yéen sa salam nee na bépp jigéen bu laal cuuraay mbaa parfum bu dee gée naroon ngaa ñëw jàkka ja fommal jëru nga fay ñëwati yii yépp nag islam da koo def ngir bañ góori saay saay si am accès ci moom nga xam ngeen ni jigéen dafa mel ni acier comme ni ko Abdullah ibni Mas'ud doon waxee nee na jigéen saa bu génnee saya boobu ni damay jaale ji saya boobu ni farta lay doxi na yëg ni seytaane katafu na ko danaa ko yaaka taara ni ngay doxee ka nangam ak yow defe ne yaa kiyal góor ñeeg yooyu ay mbir la yoo xam ni dafa mel ni acier digganteem ak góoru jàmbur l'islam dani bu jigéen dee tukki tukki bu sori bu ma nee ànd ak li ñu tuddee mahram muy koj armal muy sa jëkkër sa mag sa rak sa baay sa nijaay ñoo nga xam ne ñooñu mënuñu laa takk nga ànd ak ñoom pour sa sécurité gën a wóor jàpp naa ne kii kii yi muy organisé bañ ko la fooye rek ko waral yonent bi salaa salaam day tere góoru jàmbur wéet ci benn place ak jigéenu jàmbur góor goo xam ne takkoo takku la yéen ñaar ngeen nekk ci barab boo xam ne kenn gisu leen islam da koy tere ndax musiba mën naa juddoo foofu xaw ma seen fii de waaye suñ fële nga xam ni léegi sax waxuma la dañuy taamu secrétaire bu jigéen ñu dem ba bureau yi léegi sax daa amaale chambre salle de bain ca biir loolu gis nga gis nga tabaxkat yi taax yi dem nañ ba xam loolu léegi gis nga booy tabax bureau da nga koy tabax forme boo xam ne day amaale néeg sax ca biir ah yow secrétaire boo yaag moom doo nga fay nekk ngay jigéen muy fitna dafa gaaw fitna dafa gaaw de am na yu bare bari yoo xam ne tey bu ko lislaam dee ñoŋeel ngir bañ caaxaan am dëgg la même jigéen ji buy liggéey am na fu ko lislaam jaarloo pour mu liggéey waaye du caage ni loola moo gën ca moom kon yii xeeti njàngale lislaam da koo jàngale ngir sàmm jigéen lislaam dafa digal jigéen mu muuru sàng aw yaramam balaa may wax njàngale l'islam ci muur damay wax ni kii taxaw di wax ni muuru ñoom diw ñoo koy def ak wala nangam moom dafa fàtte ni ñun ñun sunu aada sax sunu bàyyeeg sunu maam yi sax ñoom dañ doon muuru dañ doon muuru tey ñii fi askanalee diine di ay kilifa yëpp te ñu leen nataalal man de mosuma cee gis kenn ko ay léttam di feeñ déedéet te lu diis nag lañ daan muuroo fa séeri rabal nekk ca àll bu tàng ba di bojj di soq di root ca teen ba te teewut dañ daan tàng seen yaram te yàlla dafa def kéemaan ci gis nga jigéen li attiré góor ci moom saa bu làqoo rek keroog la jigéen ji gën a am valeur ci góor gi gis nga tey boo ñëwee réew taax am na garab yuñ fay jaay yi ñuy tuddee garabu ngóor garabu ngóor li muy dugg ci Sénégal fi mu ne ak li fi dugg ci ay tonnes ci ceeb xaw tuuti comme ñu tolloo fi mu ne lii may wax nii laaj leen ko lu wér la xam nga lu ko waral maanaam góor yi yépp fi ne daanaka dañoo feebar feebaru ngóor gis nga bokk na ci li ko waral li tax góor di yëngu ci jigéen saa bu koy gis lu yàgg ak bis bu ne bu yàggee loola dootul yëngooti dafay dee dafay gedd su geddee sa ngóor a day wàññeeku jigéen ñi boo seetloo gone yi jigéen yi as bu teel nga gis jigéen teel a commencé gis baax gis nga jigéen film yu ñuy seetaan yu bon yii nii nii dafay déclencher jigéen gis règle xale bi même bu wër wërta woon toll ci gis règle film yu bon yi may seetaan dafay déclencher règle mu commencé teel a gis règle xale bi da ngay gis toll juddoogul sax ween yi commencé di génn parce que daf koy déclencher mu génn xeeti musiba yi nga xamante ni mooy am nag ngeen gis ñu di ko envoyé ci portable yeeg ñoom seen doomu aadama dafa bañ kumpa gis nga am na lool nit ki bu ko xamul rek xamu ko waaye saa bu ko xësee gis benn yoon rek faw mu jëm koo essayé yu bari ci ay yàqute fii rek la jaare islam mu ne jigéen dina sàng aw yaram ndax mu am valeur ndax jàpp nañ tey marchandise mi ñuy jaay ca jaayukaay ba utal ko emballage ak yépp même marchandise ba même qualité bi même date biñ ci def ñu bàyyi ko ci poussière bi mu pënd ku bëgg lu baax boo dikkee doo jël bu pënd ba te ñoo bokk benn qualité te ñoom lañ fa tegandoo kon li am valeur lépp dañ koy àmbale sunu borom bëgg yow nga àmbale sa yaram yow it nga nëbbu ko beneen bi ci des mooy gis nga jigéen muuru ci boppam waxuma la jaamu yàlla santaane ak sunu borom la waaye sunu borom mu ni dalika adna ay yurafna fala yudayn aaya jooju ñaari jàngale mi ngi ci loolu mooy mandarga mi gën a yey ñu xàmmee ko jullit bu jigéen bi muy sàng aw yaramam ça veut dire que kon différence bi war a am ci jigéen bu dul jullit ak jigéenu jullit mooy sàng saw yaram muy muuru tey rek col ko ko bon gi yëpp doomi jullit ñee koy sol moo tax it loo ci gis lu bon lépp ci biir kër jullit ñi lay amee falaa yu day na kenn du leen lor est-ce que xam nga ni saay-saay yi sax dañoo respecté ñu dul ay jullit dem naa côté Casamance di fa def conférence di leeral aay ji ma pare kenn ku fa dëkk daf maa nettali benn xissa mu ni benn ji ñaari jigéen dañu nekkoon ci kër gi kenn ki di muuru kenn ki muuruwut nee na ki muuruwul benn guddi mu am aajo ci koñ boo xam ni koñ la xam naa bu insécurité am na fa mu dem jël muuraayu rakk ji daal di koy muuroo te du muuru de mu génn ak moom moom moom mooy nekk ni mu ni bi mu rombee ci koñ bi rek xale yu góor yi commencé koo saax saaxee benn eh kii mooy ibaadu bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu def mu da te moom nee na maa ngi reetaan di dem mu ni muuruwuma de dama doon muur muur lu noonu rek bi ma connecté lay ma ne ko nag loolu li nga nettali xissa bi dafa firi aaya ji kon dalika adna an yuar fala yudayna kenn du leen lor am na benn borom xam-xam day nettali mu ni dafa am benn bandi bu mu dajeel bu tuub mu di ko nettali ba agsi ci wàllu muuraay mu ni ko ñoom dafa mel ni maanaam bu ñu gisee jigéen ju sàng aw yaramam dafa mel ni yàlla day def ci seen xol yi ak sell sellulu ba ñoom duñ ko bëgg a lor dañ koy bàyyi mu dem ma ne ko loolu day firi aaya suñu borom ji dalika adna ay yurafna fala yudayn mën ngaa dugg oto sax ku la mat yaay may la nga toog or ma jàngoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon fala yudayn kenn du leen lor sunu borom mu ni yow yonent bi waxal say soxna ci ñoom laay tàmbale ndax bay ci wew tànk ak say doom ak jigéen jullit ñi nañ wàcc seen muuraay yi looloo gën ca ñoom gis nga muuru bépp jigéen bu ko def def na santaane suñu borom gis nga su ko defut na yëg ni bis dana ñëw danañ ko ko defal force xam nga yenu yóbbu jàkka ji te doo jullee jàkka ji dara gënu koo metti ulaayika ma kaana lakum an yadxuluha illa xaifin ay mbokkam a jaaxle rek moo tax ñoo di ko ci jàkka ji pour imam jullee ko waaye daawul julli si ñu jàpp la takk ba nga ni ngodd sa lépp ba sa ron tànk yi ñu muur ko yàlla na fekk nga doon def la yàlla doon santaane bu la fekkee daawoo ko def day jàpp naa ne mën naa bañ a baax ci yow de islam dafa fiire jigéen fiire ba fiire néewam fieg suuluñu ko fiiraa ngeen dakk gis ngeen sunu mag ñi bu ñuy suul nga gis bu dee jigéen la dañuy jël benn séer teg ko ci kaw ngir góor ñi buñ ko gis góor ñi lu ñuy doyati néew bi gis nga bu jigéen ci faatu woon jëkkëram a ko war a sang wala jigéen wala waaye góoru jàmbur ñëw di ko sang si déedéet même bu faatoo it nañ ko sàmmal honneur am ba keroog muy dem jigéen bu commencé dëgër rek nañ ko tàmbalee jàngal muy muuru loolu l'islam santaane wu ko par hasard nii rek ki lay wax naa la aaday naar la kooku daa fàttali naar yi loolu déedéet loolu du seen aada déedéet xanaa aaday yàlla la kay bu dee yàlla am na aada comme ni ñu koy waxee déedéet du aada diine la borom bi moo ko santaane subhanahu wa taala léegi nag ñii xeex muuraay tey seeni doom nag tey sax moo leen ñoo leen jaaxal nag defe naa dégg ngeen France dégg ngeen Allemagne dégg ngeen Amérique dañuy dem ba léegi problème bi leen jaaxal mooy seeni doom ay yéefar yu xonqi nopp coo yoo xam ni fële l'islam jé jé jéggaani la tey ñoom ñooy muuru gis nga coow lu bari la du question affaire muuraay déedéet da ngay nekk français ki nekk français comme yow wala française comme yow am nationalité ak sañ-sañ bi nga am ci dëkk bi daal di muur aw yaramam kon yii ay xeeti yëf yëfaan la yoo xam ne soo ko boolee da ngay xam ni kon ndeke l'islam kat jàngale gii mu jàngal jigéen na sàng aw yaramam loolu moo gën ci moom danañ ko wekk danañ ko ormal yaramam dana am valeur tey nag borom bi subhanahu wa taala dana ko gërëm ndax la muy def ak jaamu yàlla la borom bi subhanahu wa taala bokk na ci njàngale yi nga xam ne jàngale na ko ci ormal jigéen yonent bi day tere ku dóor jigéen ci kanam gis nga bu dóor mënta ñàkk te bu mënee ñàkk moo gën te it dóor waxuñu comme góor ñi niñ koy defee meere sa jabar jël ponkalum sentir wala nga jël lu koy gaañ déedéet loolu bàkkaar la de dóor jigéen lu ko lu ko lu ko lu ko dóor yomb na jigéen lu ko dóor lu yomb lu ko yar sax laay wax waxuma dóor te moo ne islam xool ni mu ni mu yaree dóor dernière solution la même gis nga ñi ñun ñi éduqué enseignant yi te dóor mooy dernière solution gis nga xale bis boo ko tàmbalee teel a dóor ñàkk nga ko yent yàlla ne alliqu sawta xaytu yaraahu ahlul bayt yoroon nga ndam yar waaye wékk ko fee ko wax gis nga sama yar bi su ma ko àjjee maanaam xale bi kon psychologiquement day gëm ni yar bi bis bu àjjee ko rek àddina bi tukki gis nga de nga di ko ko menacé loolu léeg-léeg nga tekki ceinture bi lëmas ci loxo bi xiiral ba mu xiir xam nga ni lii su ma la koy dóor baax na ba beneen yoon roofaat maanaam moom ci li muy gëm mooy kon ceinture gi moom bis bu ma dalee keroog laay dee waaw moom li mu gëm ni mooy mooy deega bis boo ko ñamalee ñamalaat ko ko ëllëg du ko faaleete léegi nag bis boo demee nag ba yooyu dépassé wu da nga koy caw caw yu métti yum dul fàtte nga xam ne bu ëllëgee da nga naan ko ah fàtte nga keroog nga xam ne loolu mën nga ko defaat jëmale déwén noonu la ñuy yaree waaye déedéet benn ñaar ñett rek pes dóor xale bi di dër kiis du la faale kenn du yaree noonu jigéen it kenn du ko yót dóor li waaja doon wax naan lex boo xamante ni boo nekk ko tar ci bëccëg gi bu guddi gaa nga bëgg kaa foon ndax mooy sa jabar loolu kenn xamul lu muy nuru di moo tax teraanga ji war ci jigéen dernière solution mooy dóor boo ko meree faidohunna waar ko fàttali ko tooyal xolam jigéen lu tooyal xolam yomb na ci ay jigéenam nag waajurohunna nga gàddaay ko loolu moo tax ami soxna baax ah yow jigéen ji xam ne yow kese moom rek ci biir kër gi guddi jot nga wan ko gannaaw fële mu wan la gannaaw. zero zero waaw imam nee na zero zero ah zero zero kay zero zero waaye bu fekkente ni guddi daa jot nga wan ko gannaaw mu wér ko ni tey ci dimanche ji ak altine suba dong la war a aye talaata am na kooku ne ci pegg bi boo ko wane ginnaaw moo lay neexal parce que xam nañ li mu doon bañ li waa PKS di bañ waa Lambaye koy nangu rek gis nga bokk na ci xekma yi yàlla def ci nit ki am ay soxna mooy tay xusnu liqa baada bu'dil ghiyab gis nga jigéen ji tey bis bu ne ngay ñëw ci moom bis bu ne ngay ñëw ci moom bokkul ak nga am fee ñaar ñetti fan ëllëg nga war a ñëw fii maanaam booy ñëw nammeel day am beeseel am waajal am diw du ma ko ëppale bo kee xaw ma lu muy reeree foofu xaw ma nu ko fay topp tooyee maanaam yooyu jigéen ji day jéem a jaay concurrence bu ko defee jàmm ngay am suñu borom li mu yoonal daa baax ci góor ñi baax ci jigéen ñi. yii nag ay xeeti yëf yëfaan la yoo xam bi ko lislaam yoonalee yëpp terewu ko nag mu génn dem liggéey déedéet waaye daf ko organiser jigéen ji bu fekkee mi ngi sàng yaram yemul ci loolu mi ngi moytandiku lépp loo xam moo di xeetu mooy yàlla te it xool nañ ba gis ni am na aajo ci liggéey bi am na ci aajo ndax jigéen ji nga xam ne ci misaal damay joxe misaal rek pour mu leer ay way juram dañoo néew doole yorul góor gu ko mën a dimbali jigéen dana ko dimbali ndax xam ngeen ñaari doomi yonente yàlla bi ñi naan soaiba la maa xat bu ko ma yéen ana góor ñi ba ngeen di ñëw di root si ñu ne laa nasqi xatta yusdira riha wa abuna cheikhun kabir suñu bàyyi màggat na te amul doom ju góor kon mu leen tax a génn fa saqa lakuma parce que du yéen yéen a waroon sa mbaxloo góor ñi waaye ñooñu yar nañ leen ba nangu ñoo sa mbaxloo kon jigéen ji yooyu matukaay na ànd ci góor wanam kër ànd ci ila axirihi mu doog a dem liggéey su ko defee jigéen ji buy liggéey it na sàmm sàmm la ko lislaam sàmm loo amma li jigéen li nit ñi woote woo tey nag góor ak jigéen dañoo war a tolloo xam nga égal égalité xam nuñ koy waxee noonu parité allahu akbar ndeysaan gis nga nag léegi bu ñu tàmbalee fi nu waxtaan bi tàmbalee ba fi nu yegg si jàpp naa ne pour man yéen ñi doon déglu war ngeen a mën a àtt ndax parité war naa mën a nekkam déet gis nga Mariam da dani woon inni wadaatuha unsa jur naa doom de doonte góor laa bëggoon nag ndax dafa am lu ma niseroon wa laysa zakaru kal unsa góor du yam ak jigéen ba faaw moo ne ñi koy woote woo de tey soxna Mariama ci seen mooy seen yaayu yonent ci nee nañoo yeey za amu segam gëm nañ ko góor ak jigéen mbokk yi mënuñoo yam suñu borom ni mu bindee góor ak ni mu bindee jigéen bokkuñu imaam jigéen du ko nekk ci ci ay góor mën naa jiite jigéen nag ci lislaam jiitam réew jigéen yent yàlla ne laa lan yufliha qawmun wallaw amrahum imraa société boo xam ne jigéen lañ jël mu nekk seen njiit di président ñooñu duñ taxe mukk loolu ndax doyadal jigéen la boo gestoo ci liñ jot a wax ne di nga xam ndax doyadal la wala déet déedéet dafa am lu mu lay sauvegarder dafa bañ mu rëcc yàlla yónni na ba yonent yi jeex musul yoon yonent bu jigéen noddukat ñu ne eh xotti zabaat bi nga yuuxu ca kaw loolu jigéen warul jigéen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni tey ji maanaam risque yëpp suñu borom góor la ko jox bàyyi jigéen yàlla de mooy dogal te it nag ku sa bakkan jeex nga dem waaye xool leen góor ñi ni ñu yëkk jëyee jigéen ñi xool leen loolu rek tey boo demoon tey trésor wala fenn fu ñuy fayee ko passion yi da ngay wàññi téeméeri jigéen ñaari góor ñetti góor ana góor ñi ñooy njëkk a dee parce que risque yi dafa bari risque yi dafa bari da ngay joxe li ci sa yaram di joxe li ci sa poos boo tëddee bëgg di risque am jabar du jóg yaay jóg mahaali i yaay sànni say tànk di dem lépp loo xam ne risque la rek góor a koy féete woo jàpp naa ne kon jigéen ñi fañ ko toogloo moo baax ci moom kon damay wax ni man sama tontu mooy kii woote woo égalité parité ila axiri kenn la ci ñaari nit ñi wala ñetti nit ñi imma an yakuna jahilan murakkab fa yajibu an yual fala yultafatu ila qawli li wala fi naan dox bu rokkasu kooku moom kenn du déglu ay waxam dañ koy bàyyi muy taraara day wax rek way laa mu nekk koo xamante ni moom dafa xamut kooku dafa war a noppi mu déglu ñu xamal ko way laa mu nekk koo xam ni moom kat xam na waaye caay-caayee ko tax a ak yàqal jigéen ñi gis nga jigéen ñi léegi nan leen génne nan leen doyadal benn doom ak kibasi pour ñu publicité ko faaw ñu muri luppi jigéen aw yaramam ngir nga publicité benn doom boo xam ne vingt cinq lay jaar benn potu tamaate pour ñu publicité ko nga xam ni jarut 1000 francs faaw ndaw si ubbi dëndëm xoolal sa dënd bi ni mu bëlëri nga xam ni sa doom foofu la war a nampé yow kañ ngay jur doom ju baax bët yi lay xool nii da lay yàqal al aynu xaq yéen si yàlla ne bët dëgg la bu amoon lu gën a gaaw dogalu yàlla bët lay doon bari waa na ñuy tàbbi biir bàmmeel te bëta leen fa dugal bët day topp nit ba dugal ko bàmmeel topp gileem bañ rey ko togg ci cin la xoolal bi def la nga dem postère di la rom diw sa dënd baa ngi ci biti sa yaram baa ngi ci biti loolu rafetul déedéet gis nga jigéen joo xam ni foo ko fekk yaram baa ngi ci biti wallahi valeur bi mu doon am sax dootu ko amati déedéet dootu ko amati du ci kanamu borom këram du ci kanamu nit ñi borom bi subhanahu wa taala nag dafa sàkk góor ak jigéen ngir ñu war a lal ab société góor ak jigéen jigéen ñi buñ leen gëm leen mukk ni góor ñi ak jigéen ñi ñooy yem déedéet loolu mënul nekk ànd ak l'islam ormal na leen trop li ma jot a wax doy na ci sëkk islam jox na leen cër bàyyee na leen loo xam ne ay valeur la bal sax nag jigéen ñi bu ñuy dem ci ay jihaad jigéen ñaa yéen sax ñun jihaad dañoo bëgg nanga mu ni déedéet gis nga toog gi ngeen toog seen kër toppatoo seen i jëkkër tiyaabay jihaad lañ leen koy bindal xoolal loolu nga xam ne ku jihaad yow bu nan put rek ñu signal ko pour mu tàbbee àjjana ñun ne toppatoo sa jëkkër moo koy remplacer ak yeneen ak yeneen ak yeneen bi may jeexalee nag mooy gis nga bi ñu demee noonu l'islam yi bi ñu demee ba gis ni l'islam kat nii la bëggal jigéen seen congrès yi ñuy def ak seen daje yi ñuy def te yooyu ndeysaan ñun ñoo ngi toog dina la watanaan ataay fekk ñoom ña ngay xool stratégie yi ñuy jaar télé yi ci biir kër gi internet yi foye jigéen aljuma ji ba sama xutba maa ngi nettali jigéen joo xam ni ci ixtisaarin shadid daanaka rek pour wala góor ñi ni ñuy foye jigéen góor goo xam ne dafa ànd ak jigéen joo xam ni ku sérieuse la woon ku góorgóorlu la woon góor nax ko ba njaaloog moom filmer ko ñëw ni ko nag bis ni ki tey nag waxuma la sax man may sëyeeg yow saa su ma la soxlaa waaye góor gu ma andi di nga sëyeeg moom mu fay ma soo ko nanguwul image bi internet laa koy jàllale ndaw si dafa mujj ba mu sonnee ba maar ba jaaxle amul pexe benn jour waa ji daf ko dikkal rek maa ni da ko mujj jàmm dee nee na foofu laa muccee mu dese sama bàkkaar ma war a tuub kon yooyu ay mbir la yoo xam ni foyee jigéen moo tax kon ala kulli xaal dafa mel ni waxtu wi daf ñoo njatt lool donte li ñu waajaloon ëpp na loolu ñaari aay yii daal mooy yu ndénkaana yu nuy mujjee joxe donte tënk nañ mawdoo bi tënk goo xam ni mënoon naa gën a yaatu loolu ñaari aay yooyu nag jigéen ji na ko bàyyi xel bu baax moo koy dimbale digganteem ak boromam benn bi mooy wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad sunu borom ni bul ma sa toog mukk yow jigéen ji di jéem a yootoo ko xëccu ci ngëneel yi yàlla defal góor te defal la ko nga naan su ma amoon lii ma mel ni moom gis ngeen ko sax te yéen ko dégg ci politique bi fu ñaari jigéen taxaw ñaari góor taxaw fu ñaari nangam nangam loolu mënul nekk jigéen day ëmb di am doom affaire bi du sotti gis nga jigéen ñu sérieuse ñi sax ñoom ñi ngi woote téléphone ci rajo yeeg média yi di wane ni loolu wax dëgg yàlla mënul nekk effectivement mënta nekk la war a am mooy jigéen na yem place su jigéen ñu gën ko ormaal def ko yaay mooy jur mooy sonn sunu borom mu ni li rijaali nasib ma kasabu wali nisaai nasib ma kasab na góor am na cëram bu ko sunu borom sédd jigéen am na cëram bu ko sunu borom sédd mu ni ñaanal yàlla ci ay ngëneel yi mu joxe moo gën ngay yóotu ba nga góor benn ngoo surtout nisa sunu borom mu ni wa ma kaana li muminin wala mumina jaaduwul ci julit bu góor ak julit bu jigéen ida qada allahu wa rasuluhu amran yàllaa ko yonenteem bu ñu dogalee benn mbir benn mbir mu mën a doon sunu borom ni nii la an yakuna lahumul xiyar amatoo suwaa yow amatoo suwaa de amul looy bëgg-bëgg yow amoo loo bëgg amoo looy bañ say bëgg-bëgg ak say bañ-bañ daa war a boot ci ginnaaw bëgg-bëgg yàllaa ko yonenteem gis nga de waaye ku mooy yàllaa ko yonenteem sunu borom tëree nii nga di doon di nee lay doon sunu borom ni sànku nga yal na sunu borom boole ñu musal ci ñi sànku yal na yàlla soo taala delloo si waat sunuy xel ba sunuy jigéen xam dëgg-dëgg ban wàccuwaay la jigéen am ci l'islam yal na yàlla sàmmal na sunuy ndaw ak sunuy soxna ak sunuy doom yal na sunu borom dimbale ñu ba lépp loo xamante ni ca la ñuy daboo ji ngërëmal sunu borom di sawar ca lool lépp lu ñuy amee meram sunu borom ñu sori ko lool wala ajma inda allahi taala wa sallallahu sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain
waxtu bi nag waxtu la barakallah rek la fayal xam naa li des ci waxtu bi doyewul dañuy jéem a def laaj maanaam ñu war a yokk wala ñu war a laaj ndax borom bi subhanahu wa taala moom rek moo mat def na li mu mën yàlla nañu ko yàlla fayal mais comme timis moom mu ngi commencé di yëglu dañuy jéem a ubbi liste rek bu dee am na ñu nar a def ay contribution wala ay question lu gaaw al imam Abdul Jalil ak sina sànq kon bismillah bu amee ñu war a contribuer balaa timis di jot waaye am bu amul nag kon léegi ñun waaw d'accord après imam tëj kon léegi comme amul kenn ku yëglu pour contribuer dafa am benn fàttali bu ñu ci bëgg a fàttali rek nga xam ne malheureusement Sénégal yi bëriwul lu ñu koy jëfee mooy jullit ñu bëri ñu ngi dund te wàllu dund famille xamuñ ci dara wala duñ ci jëfe dara oustaz junj na ko sànq ci wàllu fàtte borom bi nee na laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyina ku ñu fase kenn du ko génne ci këram borom bi nee na kër yi jigéen ñi la min buyutihinna bu ñu génn ñoom itam sauf flagrant délit maanaam lu rëy xam borom santaala tëri muy tër amul benn njom waxtaan amul benn forondor boo mën a jaar bu gis erreur ndax bu ne woon daganul ñu génn ne leen kon fase bi ñu ko fase mën na tax mu mer di xool ci nii di tëttalee nangam naa wala ku ma génn def bakkaar moom la bu def flagrant bi donc ku ñu fase mu affiché benn comportement bu jaaduwul day dagal mu génne ko ndax oustaz wax na ko bëriwaa na kii mel rek ne fase naa génn sama kër mu ne la doo ma ko wax ñaari yoon wala am naa kër bàyyi léegi nag comme mel góom la day wér nga def une semaine deux semaines commencé di ko nam di changé yoon waroon jaar bi jaar fa ñu rien que pour seen ko ndax yow yaa jëfuloo li yàlla wax yow yaa ko yoroon sànni ko pare commencé nga di ko di ko nam ah borom bi nee na la tadri la allah ma yufidu baada dalika amra xamoo ne mën na am borom change situation mooy koo xam ne da ko fase mu war a def ñetti weer ci kër gi bu sol lu ko neex seen diggante yéen ñaar tool lu mu garaaw garaaw yéen ñaar ndax borom nee na mën na am situation bi changé mooy la mooy nga revenir à à demee sant ba kon mu wax ne juróomi étape la yàlla subhanahu wa taala wax ne bu ñu amee problème ak soxna yi nii la war a demee mooy faajoxul ne oustaz wax na ko mooy waar leen leen am na ñoo xam ne benn aaya wala benn hadith mën naa tax ñu correct ba abadal abidin borom bi nee na am na ñoo xam ne loolu moo leen di faj mooy nga waar ngeen waar leen bu dee Aïcha nga ne ko noo tudd mu ne da ngaa fàtte Aïcha xanaa yi suñu yaay Aïcha ni mu defoon ak yonent sallallahu alayhi wasallam ak ni mu ko meloon ni mu meloon moom Xadija loolu mën naa tax ñenn ñi jooy waaye am na ñoo xam ne loolu rek la wulee borom bi tam ne am na beneen groupe boo xam ne waa juróom na fi madaja ñeneen ñi da ngeen leen di gàddaay ca lal ya oustaz junj na ko nag loolu moom borom benn bu ko defee moom boppam lay gàddaay kon ñoom ngoom war nañ góorgóorlu pour am ñeneen lu dul benn ak ñoom dramé ak ñeneen ñi et cetera kon léegi gàddaay leen ca lal ya rek la yàlla wax mais am na ñoo xam ne bu ñu meree soxna yi da ngay gis ku ñu taajal ñam mu kuntaabe ko xam ngeen kuntaabe këdd ko bëgguma nangam nangam ñetteel bi mooy wadribuhun na ngeen leen dóor dóor bi na ngeen salaa sallam moom moo ñu tekkil dóor bi nu muy demee képp koo jël kurpeñ dóor ko comme ni ngay dóoree Tyson wala ñeneen ñi bu yoree ci mbar envoyé la ko yow message mu mu dal lay doon bu ñu bu leen bu la ko dóoree fii nag nga dem foo liggéey di naan damaa def foofa évidemment da nga def foofa te foofa bi yaa ko créé kenn du dóor jigéen ci xar kanam ba pare kenn du ko kenn du damm yàq dama ko wax benn booy dama kon ma ticc ko borom bi li ma wax mooy bu mu dëgër boo ticcee mooy doon nga lu metti ticc mooy dóor fa amul yàq kon mooy ñetteelu étape bi wadribuhunna dóor bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nu muy demee bu sottiwul yàlla génne ku góor ki ak ku jigéen ci ci solution bi parce que le chef de solution mu ne fabato xakama min ahlihi wa xakama min ahliha in yurida islah yufiq allahu baynahuma bu loolu ñetteel bi bu sottiwul ngeen woote ay conseil conseil familiaux maanaam ki maye woon wala ku ko représenté ak ki ñaane woon wala ku ko représenté ñu toog waxtaan borom bi nee na ma yóbbante ñi toog pour defare mu ne in yurida islaha bu ñaar ñi ñëw ngir dëppale bëggee ñu juboo yow fi xelal bay normal borom bi dina dina dëppale ñaar ña ñoom itam moo loolu lu muy tekki mooy buñ bëggee mu ñu dëngoo du sotti bari waa na kii tas tey pour beneen intérêt bu dee bu moom rek moo fi góor nangam nangam da koy wax ndeysaan te am na leen lu mu dañ ci suuf yàlla xam na ko kon ñeenteel bi foofu bu sottiwul nag borom bi ne wa in yatafarraqa yughni llahu kullan min saatihi borom bi ne nag bu léegi ak talaaku marataan léegi nag mu door a indi cinquième cinquième solution muy passé mais malheureusement Sénégal da ngay am problème ce jour bu njëkk ba rek ne ko may naa la baat kon nañ càmbaraat li yàlla subhanahu wa taala wax amul lenn lu yàlla bàyyi jullit bi ci vingt quatre heures mu bàyyi au hasard foo toll am na lu alquran wax wala lu la lu la sunna wax xëy na kay xëy na laa intéressé wul wala nga sàggan ba jéem a ko xam mais amul vingt quatre heures amul lenn fenn fooy toll su su lu dul rek borom subhanahu wa taala nee na lii nga war a def wala lee nga war a wax kon beneen bi mooy boobu tax borom subhanahu wa taala dafa xam doomu aadama nee na wala junaha aleykum fi ma aradtu bi min xidmati nisa wax nañ ko fi anfusikum alima allahu annakum tadkurunahun walakin la tuwaxiduna sirran illa an taqulu qawlan maarufa moom mi bind xol xam na xol xam na xol lu mu bëgg a faj mu ne jigéen ñi nekk fi tënk amu leen bàkkaar ci wax luy wane ne ñoom buñ summee bëgg ngeen leen takk mais pour respecter ay sentiment ak situation bu mu nekk dafa ne walakin la la tu'anuhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa bu leen leen wax lu jëm ci loolu ci secret lu dul ne na doon ci respect imaginal ku borom këram génn àdduna nga ñëw di ko naa yow yaa ma tee nelaw temps yi borom bi ne loolu jëpp dafa ne da ngay wax loo xam da koy niru suñ mag ñu liñ doon wax daal yaa ngi ci biti de ñoo ko benn xale mu ne dugalal daal yi mu ne ndeysaan xale la wala mbuub maa ngi fekk yooyu yëpp borom bi nee na na ngeen ko wax ci ni mu gën a jekkee pour ñu comprendre ndax borom subhanahu wa taala dafa na dafa objectif maanaam diine ji dafa ànd ak doomu aadama ci lépp kon loolu la oustaz xawoon junju te mënu ci xóotal ndax doomu aadama matul ñu mu ne woon dañ koy gën a fàttali gën ko mettre en relief di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala di sant yàlla bu ñu dajale waat gannaaw bu ñu taxalikoo lu mag ñaar fukki at ndax ñoo bokkoon bu ñu doon jàng li ñu ko waxoon kon yaakaar naa dañuy jéem a jox Oustaz Jalil mu contribuer ñaan ñaan mu jeex bismillah déet mën naa ñëw rek des na.
voilà na ñëw waxtu bi des na.
Al Oustaz nee na des na man ngay ñëw def contribution na ñëw rek.
nee na kon sëñ bi